waaw maa leen di fay di wax auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu sante yàlla julli seenante bi di ñaanal sama papa ak sama tante yàlla leen yàlla xaare àjjana firdaws ak mboolem jullit ñu leen fa fi jàmm yàgg lool te wér di bëggee waa Caaree Géej aw seen fay mais Reug mu mel ni bés bi nag bés bu mag la ci Reug Reug nag ndax lamb coow boo mës am rek lamb ji moo ci ëpp coow lan moo waral loolu sa digganteeg Sa Thiès lan moo ci xew non euh, lamb la rek comme yeneen combat yi ñu ngi waaj ànd ak suñuy mbokk waaw ñu bis mënta rëy si ñun lamb rek dañoo war a daje dañuy daje loolu la quoi mais du dara. mais mais ñu bëri gis ni Sa dafa yokk poids bi. Mhm. Sa dafa pare pour bëre. te Sa Thiès keroog bu mu yokk poids ci la gën a mën a bëre dafa mbir mu mobile la. est-ce que Reug Reug mu ngi sóoraale loolu. waaw yëpp dañuy baay bu bis ba rek incha allah li ma koy ñaanal maa ngi ñaanal jàmm di may di ko ñaanal gudd fan ba la cinq incha allah la cinq. incha allah maa ngi maa ngi ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam mais amul lenn lu ma kay wax moom na ñëw rek. ñu bëri dañu jël favori bi favori bi jox ko ki nga xamante ni moom mooy Reug Reug est-ce que loolu mënu la naaguloo ci combat bi. non mënu ma naaguloo ndax man mbër laa mbër laa du ma bërëkat mbër la mbër. mbër nga doo bërëkat. non non loo bëgg wax foofu. non dama xam ne mbër laa rek loolu après incha le cinq ngeen ni xam. kan mooy Reug lu mu ñëw rek maa ngi koy lu mu indi tax man amuma problème boobu waaw xëy na moom damaa umpalu damaa umpalu wu si bëre mais incha allah la cinq incha allah dina euh, bu dee bu dee bu gisaatee Reug Reug dina dina capot baa ngi. incha allah rek rek rek gars yi nee nañ yow yaa ngi soog a am ko ne combat yi ko doon am yëpp yaa ngi soog a am combat yaa ngi soog a am adversaire waaw mais maa Elton nan la demoon li may jël Elton gars yëpp dañ ne manuma si moom dara. Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor. Giri ma koy jël dañ ne man manuma si moom dara. national waaw mu ngi noonu lamb la rek. lamb moo baaxee noonu. mais maa ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam. mais mais ñaar ñooñu ak xale bii du benn parce que yéen ay adversaire de taille ngeen ñaari xale la bii combat jànk la. waaw combat jànk la. combat jànq la ba ñun ñu combat jànq la mais ñun ànd nañ suñuy mbokk waaj nañ ñu ngi wane waaj yëpp incha allah di ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam la cinq incha allah. est-ce que yaa ngi sóoraale bëri bu gaaw bu saa kees yëpp amul problème na ñëw rek maa ngi koy xaar incha allah maa ngi koy xaar saa bu doon bëri dix combat ma daan ko dix jëlee yoo xam ne bokkul ndax ma mental bi nekk bëri bi nekk fi newul si saakees. ak benn bi yaa ma expliqué la. foo ma ñëw rek. gars yi dégloo leen Reug Reug mooy wax. foo ko nga teg dix combat. Ah. ma daan te dix jëlee yoo xam ne bokkul ma boole ko si beneen beneen omo ñu ak biir. waaw bu ñaaw ma tegal ko si beneen muy eleven. fan nga teg loolu. da da ko xeeb non dama ko dàq bëre dama ko dàq bëre gën kaa doon xale ëpp ko doole. est-ce que xeeboo bi. non du ma ko ndax euh, man bu may bëreeg yaaw jaasa du ma ko xeeb lambu la. gaal gi nga teg Malibu lu ko waral. non gaal gi du Malibu gaal gi géejewaay la ne. waaw waaw ñaari dott laa koy yee euh, si ñaari dott xam nga dott. dott waaw xëy na nag waaw xëy na xëy na waa géejewaay duñ ko xam. you